jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne mbokki ñu ngi fii ci ginnaaw raay seet si fi kenn koo xamante ni kenn du ko werante ci làmb xëy na am na ci ñoo xamante ni ñiy seetaan làmb dëgg-dëgg buñ ko gisee duñ laajte ki mu seet si mooy kan mooy fils de Badlane nga xamante ni keroog macha allah biñ demee Adrien Senghor def na fa jéego boo xamante làmb war nañ ko bàyyi xel tey moo waral wasaare làmb ñëw seet si ko ngir waxtaan ak moom ci aveniru làmbam ak ci lan la nekk combat arène yi ba xam mu ngi koy déggam déet looloo waral waa wasaare làmb ñëw fii seetsi si ko man maa lay ziar. maa ngi dolli ziar ba baax di leen nuyu di leen ziar di leen sant bu baax di leen gërëm quoi ci déplacement bi macha allah di nuyu sama gars yi nga xam ne ñoom lu ñu nekk soobu ngoon rek ñoo ngi ci quoi di nuyu sama mag Babacar nga xam ne moom. lu ñu soxla su ba ngoon jot moo ci taxaw yàlla xam na ko ba nag ba weeru koor këram la ñuy nekk un mois fa la ñuy defee lépp yàlla xam na ko di ko nuyu baax di ko sant gërëm di nuyu gaay yëpp Koor ak gaay yi daal ñu manee yëpp daal ñu ngi jaar baax. Fils mhm. de moo la dugal ci làmb. non amul ñu dañoo judd fekk suñ daanaka femme bi yëpp di bëre. waaw dañoo dugg fekk suñu papa di bëre sama mag ak ñeneen ñeneen di bëre waaw ñu ñëw nag bëgg ko xam nga di ñaan yàlla mu jàppale ñu si daal. Mhm. waaw bëgg loolu daal moo dugal fami daal moo ñu dugal. bëri nga arène. waaw am naa cinq combats ren am naa ci trois victoires deux défaites quoi. kan wala daan kan ak kan. Alboury moom daan ak Diatta Diop sama juuma. nga ma daan daan jàppatuma ne moom jàpp ma seen tur quoi. Mm. waaw maa daan Metzo Ngiskara ak ak. bëri na daal ñoo daan ñi trois personnes daal. daan waa gis nga. ndam yooyu moom fàtte nga ko weesu nga ko. gis nga li nekk suñu kanam la ñuy xool ko hmm. incha allah. ma lay gis ci làmb simple yi ngay def jéego bu bu yéeme ci làmb nga koy def di yéeg jëm ci kaw keroog ma seetaan sa combat yow ak pakala bu mbuur wala hmm, assurance. assurance bu mbuur ngeen bëre nga daan ko ma ñëw laaj la nga ne ma xëy na day bees ci yéen waaye daan naan daanaan bu nekk ci làmb. waaw comme ni ma la waxoon keroog rek ñun moom loolu nekkul lu bees si ñun nekkul lu rëy ci ñun quoi parce que ñun daan nañ ku ne ci làmb daan nañ mbër bu ne ci làmb yàlla xam na ko ay jaru sax ma lim tur mais daan mbëru simple daal xamante nañ suñu biir quoi. loolu comme mbëru simple yi kan ak nga jàpp ne daje ngeen ci làmb yi keroog 5 millions yi ñëwoon nga. yii paas noonu mujj ma ñëw dama amoon épaule quoi sama épaule moo doon métti moo tax ñëw ma. mbër nga jàpp ne daje ngeen ci làmb simple yi. ci ñi làmb xam. Libidor bëri nañ. waaw daan na ma daan naa ko. booy fay bëri nañ ku ne daan sa morom ñoom góor a sok ay bëri na ay nandi faal ñoom ñëpp waaw ba ci ñoom ki mu mujjee daan keroog quart de rërëg bëri nañ waaw rërëg moom daan demi finale moom. Mhm. ak ak yeneen champion ah, yu ñëpp xam. Mhm. keroog nga caaka fay daan la. bi caaka fay di daan dafa mel ni da ngaa xeeboon caaka fay de wala da nga joxoon cër bu ëpp. non du question xeeb sax. noonu lañ mën a def dana jàpp dana jàpp ne li suñu xel jox daal dana jàpp ne loolu moo koy daan ñu dem far yàlla gis ku ne gis nu mu demee mais ñu sant yàlla di naan yàlla ëllëg mu neex quoi mu gën a neex incha allah. ban écurie nga nekk. ñu ngi xam sa cosaan. yow xam sa cosaan ndaanaan yi fa nekk bari na yaa ak ñana fa ne. ñoom soq ngi fa ñoom jadli ak ñoom ondu la fu naar sogaas ak yeneen champion yu mag. waaw gaa yëpp a ngi fa waaw. ond sama copain maa lay siyaar bégee tey nga jug ci ban at nga am ñaata at nga am. waaw ñun man moom maa ngi juddu 95 quoi 95 laa juddoo waay. 95 le mm-hmm. nga dugg kañ ci làmb ban année. 2016 lañ dugg ci ay làmb ah di bëre yàlla ñu suturaal quoi. Mm-hmm. bi làmb ji saison bi ubbee ba léegi promoteur yi ñu ngi lay contacter. non ren moom xam naa ñëwaguñ mais dinañ ñëw léegi incha allah dinañ ñëw léegi incha allah looloo waral tey nga dem ci làmb simple yi fu am nga dem. waaw ñun moom du ñu xaar làmb arène gars yi xam na ne ñun du ñu xaar làmb arène bu ñu gisul arène rek ñu ngi si mbabat bi daanaka fii Dakar moom man sama noppalukaay laa ko def sama noppalu dama fi noppaloo daal waaw lu ci ëpp àll bi laay dem fa laay bëree mooy loolu su ma déggee làmb Dakar dem bëri ji. Uh-huh, ñun moom diggante daaw ak ren daaw ñaata mise nga jël ren daa mel ni jëlagoo de. ok ah, ren jël naa daaw ñaata nga jël. non daaw bari na li ma jël bari na de yàlla xam na ko. na 15. waaw war na ko man de. am nga xaalis macha allah. amin amin <laughs> amin kon looloo tax combat arène bu ñëwee baax la bu ñëwul baax. waaw ñun mooy li ma la wax sànq rek ñun tooguñu di xaar benn combat ñun lam simple du xaalis sax dugal mais compétition bi ak yokk suñu bëre moo ñu a yokk tax ñuy bëre simple quoi. Mhm. mais lamb arène moom bu ko amee baax na bu ñu ko amee dañu bëri bu ko amul tamit ñu ngi si simple bi quoi. saison bi ñu toll ci deux mille dix neuf deux mille vingt bi mu commencé daanaka day doog door sax ñaata mise nga ci jëlagul ak fan ak fan nga jël. waaw ah, jëlagul naa ñeenti làmb benn maa ngi ko jëlee Thiaré dëkk bu ñu benn dëkk bu ñuy wax caare nekk fële ci région Fatick ak kii Njaay Njaay Fatick. boobu hmm. ñoo ko jël. koo daanoon final bi. jàppatuma seen tur la mais xam naa ay ñoom seex Ndiaye moom. Hmm. ñooñu xam nañ leen côté boobu bu baax quoi ñoom ñoom ñoo leen génne waa. Hmm. bëri daal daal mu ñu jël ko ay mbam mbam loog xam naa war nga ko xam waaw ay caare ay Fatick euh, mbelo ngi xam naa war nga ko xam mbelo ngi ci ren waaw foofu yëpp dë jël nañ fa ren quoi. Mhm. si ren bii passé mooy suñ première sortie Dakar. mooy mhm. mooy bu ma final ak nii passé. mooy sa première sortie final. Mhm, moom laa njëkk ñëw adressé woon quoi. nga ñëw rek dem final. waaw ñun loolu miin miin nañ ko ko parce que ñun yàgg nañoo dem final comme li ma waxoon sànq rek nekk lu rëy si ñun. yàlla xam na ko ay xale yu ndaw lañ mooy loolu. Hmm. mais dama seetlu en ñu mel ni yow bu ñuy bëree mag ñi ku ci mel ni assurance bu mbuur wala pakala mbaa caaka fay effort bi ñuy def di bëreek ñoom di leen daan bu ñu amee seen moroom wala mu nekk xale boo xam ne kenn xamul dañuy dañuy fowee seen làmb daal. waaw ñun dañuy kontaan di di bëreek ñooñu. fu xam na ne maa ngi toll nii dañ seetaan kon bu ñu demee ba bëreek ñoom di bëreek ñoom dañ ciy def fulla ak la xam na nga dinañ mën a yóbbu fenn fi quoi waa mooy loolu ñoom nag di bëri ñoom da nga ciy kontaan quoi. Mhm. gis nga làmb neex na. Ah, neex na neexul neex na neexul parce que di nga si dégg lu ne di nga si gis lu ne. lan neex ci làmb. ah nga ñëw bëre daan gaa yi kontaan loolu rek dafa neex ci làmb yàlla xam na ko surtout sunu waag nga xam ne dañuy sonn suñu waa koñ bi dañuy sonn suñu yàlla xam na ko bu ñu amee combat duñ nelaw duñu yendal lép di jël seen temps yëpp di ko def si ñun kon ñooñ boo amee combat am dam fayu leen sax mais xam nga dafa neex loolu rek dafa neex ko am ndam. daal day nekk seen mbégte. Hmm, noonu la demee. Hmm. lan moo ci gën a metti loo xamante ni moom làmb metti na ci trop. non làmb moom daanaka déggum la lépp metti am na lu ne am na lu mais lépp li li metti moo ëpp quoi. yàlla xam na ko da ngay dem préparer sa combat waaj tey def lu nekk nga ñëw yàlla xam rek weddi mooy loolu loolu dafa metti quoi. mais di sant yàlla nag di sant yàlla bu baax. làmb moom fi mu toll nii bàyyi nañ la xel boo xamante ni ñëpp ñu ngi lay bàyyi xel ndax yaakaar nañ ni ci làmb macha allah ni nga mel sa taay sa gabari ak sa bëre jàpp nañ ni ñu ngi lay séentu fi ñuy séentu champion yi ci kaw lan mooy sa secret. waaw avant di leen wax na ñun defaguñ dara defaguñ dara ay xale yu ndaw lañ waa secret mooy mooy xëy dem entraîné ji nekk ci lu neex làmb quoi waaw ku ne xam na làmb daa fiir. waaw nekk ci lu neex lam li lam ba ñëpp ñu tege ko côté quoi gars yi mën nañ seede loolu quoi yàlla xam na ko. moom soxna. non amaguñ soxna. booy bi. ban booy noonu. non amuñu gel <laughs> amuñu gel de amuñu gel. Euh, non kenn koy gis ni di ko baar xaw koo bëgg di ko lam. loolu teel na si ñun quoi parce que ay xal lañ. defaguñ dara ci lam loolu bu mu des na ba ci kanam kanam mhm, des na de loolu moom dañuy xaar quoi. <laughs> ko lutte simple ba kan moo la ci sonal. non manoom képp ku ma dóor yar rek après nag may àll yar ma fayu ko ñi ma daan ñëpp daan naa leen kenn daal laa ci bëree la gun te ma ko mayoon demi final muy rëg may mhm, moom papaam ak sam papa ñoo daan mm. te maag moom tamit mooy loolu daal. Mhm. kon bu ngeen dajee ci làmb simple bi da ngeen di mayante. waaw buñ daje dañuy mayante parce que maak moom. Mm. yàgg nañ du làmb sax moo ñu boole yàlla xam na ko mm. nekkul ay làmb yu mooñ ñu boole. jaayante boobu xam na li la ci mën a fekk li CNG wax yëg ngay ko li dal Doudou Sané ak Obali. Doudou Sané ak Obali. ñoom lan moo leen dal na. ñoom ñaar ku ci nekk CNG bi daf leen a bu Doudou Sané bindoo Obali du bindu bu Obali bindoo Doudou Sané du bindu. Hmm. looloo waral keroog 5 million yi Obali bindu Doudou Sané binduwul. arène nationale Doudou moo bindu Obali binduwul mbaa loolu du la fekk sa diggante ak Reug Reug. non comme comme li ma la waxoon sànq rek xam nga tey man nga rek du làmb moo ñu boole. moom papam ak sam ñoom ñoo doon ànd di defandoo entraînement defandoo lépp tey mu judd ma judd ñu màgg di ànd kon buñ daje si làmb yoon la ma may ko yoon la moom ma may ma. mais boobaa tamit dañuy bëri ba mu neex ñoom loolu lañ ci bëgg n'est-ce dañuy bëri ba mu neex. xamul mayante CNG réglement la xam mbër mu maye mu xam ni kii dañoo may réglement bi dal sa kaw. waaw loolu loolu moom. waa seen la engagé quoi waa la engagé quoi. Ah, bul dem ci àll bi di maye de ku gañe sa kër nga yóbbu. kenn du kenn yàlla xam na ko. àll bi rek ndakaaroo ci am ku gañe sa kër waaw noonu la demee moo tax du ma may kenn comme li ma la wax rek lamb simple moom xam naa sa waay daal mooy loolu quoi. gën a xiif ci mbëru simple koo xam ne moom bëgg nga ngeen daje yéen ñaar ci mbapat bi parce que am na loo xam ne jëflante ngeen ko mu metti la trop. non man moom bëri nag ak ñëpp mbëru simple ñi coow fi yëpp bëri na ak ñoom waaw ñoom ñëpp du ma nag xiif naa kenn quoi ku ma ku ma ci làmb simple boole rek ñu bari xiif ma nekkul damaa xiif kenn wala dara comprendre waaw ku ma ci làmb simple boole rek dañuy bëri quoi. dóor bi. arène fan nga jëm. non man maa ngi toog xaar kuñ ma jox ma bëri man pare naa pour ñëpp. ñan comme ñan sa naataangoo ñan la. jarul xam nga mbër boo fi lim mu ne da nga koo pare affaire yooyu noonu moo tax ñuy lim tur man ku ñëw rek. boo ma limalee ñett mbër ñett mbër yëpp mënoo leen parendoo te man maa la laaj. du dëgg ñoom tamit dañ may seetaan ma leen di laaj ñu may wax boo ko waxul duñu xam amateurs yi ñu xam fan nga toll fan nga jëm promoteurs yi du ñu xam fan nga toll fan nga jëm. Ah, man moom kuñ ma jox ma bëri comme li ma la rek ay ay njaaytin mi ngi fi rek ñoo dara ko tafatin ngi fi bu fekkee amul combat mën nañoo ñu bëre. Bébé Diène amul combat mën nañoo ñu bëre. am na combat diggante ak Fourrière. waa ak Tafambar Tafambar yaakaar naa amul komba ñoom tam mën nañu ñu bëri làmb boole nañu ay moroom lañ ñoom buñ buñ ma magul maguma leen. donc am na ndam bu mu jugee barki démb de moo Alioune Seye si ñoom. non Alioune daan xanaa. waaw bi jox nañ ko victoire bi. waaw na ñëw ñu bëre comme am na ndam kay. maa ngi ci victoire ci victoire laa toog na ñëw ñu bëre. <laughs> est que daa ko ñu ko dóore tamit. Hmm. waaw làmb du dóore kese sax. làmb du dóore quoi bëre daan def fu la fay dama nekk quoi. Hmm. am nga am nga koy roy ci làmb. Hmm. sa idole la kan Yaxya Diop Yékini waay lan moo la neex ci moom. non fullaam faydaam ak caractère am ak man bërëm loolu daal mooñ kii si moom daal ba ñu bëgg ko waaw di ko rey dina ñaan yàlla def fi lu raw li mu fi def moom. parce mhm. xam nga ni Yaxya Diop macha allah fa tabaarakala lépp lu ñuy séentu ci mbër dañ koo gis ci moom ci dalam ci teeyam ci mën communication ci mën bëreem ci xam gëddub làmb dëddu lépp. topp làmb yaa ngi ci loolu. waaw ci moom la ñuy roy moom lépp lu mu def soo ba ngoon jot rek ñun suñ téléphone mi ngi nii yaa jo bi ni rek lañ ciy seetaan yàlla xam na ko moom rek lañ seetaan lu muy def soo ba ngoon jot ñu ngi si te xam ñun xam nañ li ñu làmb may ñu làmb may pour ñu ko ak lu ñu mayul pour ñu bañ ko def waaw loolu moom si ñun la quoi fu la beeg fayda beeg noonu si ñun la pour man quoi nekkul da ngay roy nit ki di comme fu la ba fay ci ñun la quoi. le bii di ñëw dafa organiser fële ci Mbour dinga dem. incha allah rek bëgg nañ ko dañ ko waaj bu baax. lañ ci dem da takk ngemb li de wala da ngay dem toog seetaan. non faa ñu dem takk ngemb li yëngal ba mu yëngu incha allah. ndaanaan yëpp dinañ fa daje. ah mais ñun est-ce que dañuy génne ci ndaanaan tamit ah ñun ay ndaanaan lañ comme ndaanaan yi rek. moo waral boo nekkuloon daanaan duñ déplacé wu ba ñëw fii di la seet waaye gannaaw li ñu amoon ci waxtu jot na xanaa dañ lay bàyyi nga tàggoo rek. waa xanaa di sant yéen di gërëm quoi ci déplacement bi ngeen def waaw ñun yàgg nañ di bëri ci li simple kenn mosu fee ñëw bi may première fois ñun defal lii ne kon dañ leen ci sant bu baax di leen gërëm di sant Babacar nag moom mi ñu boole ngeen ba nga xam ne moom ñoo doon ànd fi guddeeg bëccëg ju dondoo feeroo fi màggee fi dem moo ñu tàqale te tàqale ko ñu sax ndax ñi xool yaa ngi gisante quoi. fi nga na waaye fi nga nekk sori na waaye yaa ngi. xooli waaw ngi gisee ñu ngi déggante xam nga di yi nag sama gars yi malien yi mais ñoom Sadio bu muy toog sama cumbukaay di ñoom ma Malick Makumba garant yande moom sama garant la moom affaire xam rek yaa am gën a xam mooy gérer loolu Tafa ak ñoom Jibi ñoom Babacar sama mag paa bi di nuyu gaa yëpp daal ñoom mbay mbay mi nga xam ne chaque lam mooy jël otoom yàpp ñu si ñu dem waaw moom moo ñëw dem fay ñoom baaba gars yi ñoom bàyyi gu ñu sama mag la ko ak ñoom instant di ñu ñëpp di nuyu nag waa fondation groupe Sopp Serigne Babacar di nuyu tamit waa groupe Sopp Serigne Babacar di nuyu waa Banlieue Arts ñooñ luñ lépp ñoom dañoo jaral lu ne ñun ñoom tamit ñun dañ leen jaral lu ne ko waa mi noonu di ziar ñëpp di nuyu waa Siteu yëpp yaa ma gën a xam. jërë ngeen jëf mbokk yi foofu lañ leen di tàggoo xale la boo xamante ne bàyyi leen ko xel ci làmb xale boo xamante ne bu dugg see doo laajte ana mbër mi macha allah ci jëmm ji ci gabari bi ci mën a bëre bi doon na koo xamante ni looloo tax wasaare làmb déplacé wu ñëw ngir dégtal leen ko ngeen xam ko fils de Badlen la bu leen ko jaawale mbokk noonu lañ leen tàggoo daa am leneen loo bëgg a wax. waaw sama waa fans bi. di leen nuyu ñoom ñëpp di wax ñu jàpp rek incha allah dina baax waaw di leen nuyu ñoom ñëpp ku ñu mel ñoom El Hadj ak ñoom Pape Ali Ndaw ñi nekk ci fan club bi yëpp maa ngi leen ziar quoi wax ñu jàpp rek dina baax incha allah. waaw xanaa di ñaanal sama yaay rek fi mu jëm gënal ko fi mu jógee parce moom da doon si ñun quoi donc bi muy dëddu sax ay xale yu ndaw lañ mais teewul xam nañ nañ xam nga di ko ñaanal fi mu jëm gënal ko mu jógee ak bépp mbooloom jullit xam nga di sant nag sama gars yi waate lamin Fati waaw di leen nuyu baax di leen sax ñoom tamit dañu sonn si ñun di ñuy ñoom Mottin ñoom la muy faati gars yi xam nga di nuyu Gara Yande moom chaque jour chaque jour moom moo ñuy for sax ñëw leen seeraas ngeen nekk chaque jour fa la nekk saay bu ñu xëyee moo ñuy woote ne ñëw leen ndékki si yàlla xam na di gërëm tamit Roq Njaay mi nga xam ne moom firit yeeg yoo am gën a xam ndékki yu baax yi. daal ku koy jox lekk rek lay gërëm. waaw mais ci la bokk nag ci la bokk de <laughs> ci la bokk di gërëm nag waa Wasaare Lamb quoi di gërëm Mohamed Ciss Mouhamed Ciss nga xam ne mooy suñu président daara di nuyu suñu waa daara bu baax daara sopp sëñ Babacar ñu nuyu di leen bu baax di gërëm Mouhamed Ciss moom tam day sonn ci ñun di yëkkati alalam di ñu jox xam-xamam lépp xam nga di nuyu waa koñ bi yëpp nag waa sib si di wax ñu jàppale ñu bu baax waaw di wax suñu ganaar Gibson ñun ñu ngi si ginnaawam waaw fii moom mooy suñu mbëru bu mag quoi ñun ñëpp ñu ngi si ginnaawam si ginnaawam lañ topp lu ñu wax la ñuy def buñ teree ñu bàyyi quoi waaw di nuyu waa sib yëpp di ñaanal sama papa yàlla bàyyi ko ba ci kanam kanam ba mu fekkee suñuy njëriñ quoi incha allahu rabbi di ñaanal Babacar tamit moom nga xam ne lépp moo ñu koy defal daal moom moom lu nekk si ñun lépp moom la lu nekk si ñun lépp la dañ naan defal ñu def mën nañu bàyyil ñu bàyyi quoi waaw di ko sant bu baax di nuyu suñu waa kër yëpp nag di nuyu suñu jabaru mag yi ñoom Mati Adama xam ñoom dañoo mën ceeb quoi macha allah yaa ma gën di nuyu sama tante Fatim di nuyu waa kër yëpp daal na sekk sama mag mooy yaayu tas ñu ngi koy nuyu moom tam di ko sant bu baax di ko bu ñu amee combat du nelaw di yendal waaw lu mu am da koy def si ñun. yàlla xam nag sonn si ñun trop trop di ko ñaan di ko di ñaan yàlla mu bàyyi ko fa ba mu fekkee suñu njëriñ moom itam. Mhm. di sant gaa yi nag maliens yi quoi waaw Sadibou ak gars yëpp daal. jërëjëf. jërëjëf daal jërë ngeen jëf kon foofu lañ leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqaliko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jaa ngeen jëf.